ala awliyaihi buxuuru al anwaar wa jacal lahum macaadin almacaarifi wal asraar asaaqi min baxrihi annamir wasalaatu wasalaamu ala sayidi almursalina sayidina muhammadin ibn abdullahi rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man walah wa radiya allahu an baxri alfuruuri walmacaani man qaada abxara alyaqiniyaati nayla al alahiyati al ilahi fan naa la maan naa la min al wilayati badru sukuuki alamul munir bahrul xaqaiqi bila tankir mawlaana abdul abbaasi ahmad ibnu muhammadin salimi tijaani wa radiyallahu an jaddina wa qudwatina ila rabbina mawlaana alxaaju malik alayhi ridal malik mbokk yi maa ngi leen di nuyu nuyoo bi ñu yàlla boole muy asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye di jiital ci nuyoo bu suñu kilifa gi muy Serif Ibrahima Haydara At-Tijaani waaye bala ñuy yëkkati benn kàddu nag ñuy ñaan ndigal ci wax bala ñoo yëkkati kàddu ndax sooba dafa jafe ànd ak yàlla dafa yombul ndax laa tarfaw aswaatakum fawqa sawti nabi te al ulama al aamiluuna warasatul anbiya bu al ulama rek al aamiluuna parce que xam-xam boo ko amee te jëfewoo ko njëriñ la du bari bu ko defee ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu mbooloo mi yëpp di sant yàlla bu baax ci jataay bi ñu toogee nii ndax daaw ni woon ñu fi amoon nëbëtu ñu toog fii bis bu ñu jaay pour nuyu ci jataay bi mu amoon ay gàllankoor ba ñëwuñu fi. ba tax ren ah ñu def lu tout pour ñëw fi di jégalu bu baax a baax a baax ci yéex gi ñëw fi ndax ñëw nañu depuis le vingt le vingt six sept le vingt six décembre fekk le trente bi passé le trente bu ñu nee sa gàmm gi sàmm mu ngi doon jàngal gàmmo ca Palmeew mu ngi ca département de Kébémer arrondissement bu Ndande fa la ñu sàmm doon jàngal gàmmo le trente. loolu moo sama gàllankoor ba ñëw woon ci gàmmu gi passé di sant yàlla bu baax a baax a baax ci ñëw bu ñu ñëw ci jotaay bi ndax fii ñun mën nañu ko ndax dafa am loo xamante ni moo ñu boole te dama wax ni wax naa ko ci kanamam ca Grèce ma ne su fekkente ni damay uti sëriñ damay uti sëriñ pour ut xaalis ma dem uti sëriñ américain yaakaaree xaalis sëriñ dépassé na affaire xaalis affaire alal nañu am na nit yàlla te am yàlla loolu ñu war a boole ak sëriñ yi waaye bari nañ ko nga xamante ni dañ ñu am na nit yàlla bu doxee tuuti yëfam xaw a taxaw mu bàyyi ko dem seeti keneen loolu la ñu ñun ñëpp te am na nit yàlla nag bu loolu bu ko defee ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ci oyofam ci modestem ñun ñii suñu suñu suñu jëmm yi nga xamante ni tekki ñu dara buñ ko woowee waxtaan ak moom ak fa Grèce nekk dafa ne bu leen def dara bii sax bu leen ko dagg dinaa dagg bii dinaa ñëw jox ñu jour dagg bii ñëw fekk ñu fa defal ñu ñeenti fan lu gën a yéeme bu ñëwee ba toog ci jotaay bi da nga da nga doon fàtt da nga doon xam sax yow ana ana kan moo ci shérif. kan la ci boo xam boo fa xamul boo ñëwee di nga laajte kan mooy shérif te ñun man nañu man nañu samay doom la rek loolu lu gën a yéem ci moom la lu ñu gën lu ñu yéem ci moom la te lu ci yéem mooy ñuy def noonu def noonu ku mat a moytu la waaw dafa ci am la nga xamante ni yàlla moo koy baaxee jàmm du loolu ut mais yàlla moo koy baaxee nit te ñun am na loo xam am na loo xam ne yàlla moo ñu ko xamal ci moom. parce que première fois ma fiy ñëw li ma mëbatoon mooy du ma demee du ma du jëm seeti ko du dem nuyu ko du ma dem def dara bu fekkente tamit ci yàllaa ni ci moom bu xamul ni maa ngi ñëw ci kër gi ren ba déwén bu boobaa doot ma fi ñëw man man ba ma fay dem man loolu laa loolu laa mëbat deman mooy jóge caaro yi yor sama moto bu ma jaayee ba àjjuma ci ngoon ma dawal sama moto ñëw gaare fii def naa ko ay fan ñëw gaare fii adra génn dem ba benn bés ma ñëw di waat ci buntu mu ubbi fenêtre bi li ma borom moto mi nga def ma ne ko la rek am na ci loo nga xamante ni boo amee nit yàlla da nga koy natt ubbi fenêtre bi ni ma mi nga def ma ne ko maa fi mun ma foo jógee ma ne ko caaree laa jógee mun ma nga jógee ba fii di xadratul juma ma ne ko waaye caaree da laa jógee ba fii di def xadratul juma

pour wax la ne am na ci loo nga xamante ni di di déglu ñenn ñi sax da lay tardel sëñ Babacar si dafa wax ni bërëm bi wadd ci ëtt nga dugal sa loxo doj ko nëb ko keneen tëddee fa mu bërëm daanu ñu sama loxo mooy def xanaa doo ñàkk fayda sànni sa bërëm daw topp kay xel na loolu loolu bu ko defee daal ku sëdd da ngay gëm ku sëdd da ngay gëm te ànd ak nit yàlla yóbbu li ustaas Massiré Kane di wax mu koy dégg ci moom yu suñu waaye bari nañ de yu suñu waaye bari nañ de waaw loolu moom bokku ci moom bokku ci de dama dégg wax yu ma naqari ma tëdd war ko alquraanul karim mu naqari ma loolu ma tëdd benn guddi ñu wan ma diggante raw bu sëriñ Babacar ak kër sëñ Mansour si borom daara ji ñu tànt fa tànt bu rëy kii wax nag xaw ma kan la wax dëgg yàlla mais du kenn mbay moo koy jottali mu wax ni Chérif Ibrahima Haydara yi nii ñuy wax Chérif piir la barke alquranul karim lu may wax bu dul dëgg yàlla bu ma àggale mu may wax ñun lañ ma ko waxee keneen yëkkati beneen mag bi même jataay bi beneen mag daal di ni man de wax nañ ma ni boo demetee Dakar na nga dem ca zawiya Cheikh Omarul Fouti ba fa nekk nga julli fa ñaari rakka nee na ma ne mu ni Cheikh Tidiane moo ko ko wax la wax ci jataay bi. mu ne wax na ma ni boo dematee na nga dem te zawdu raw zawiya Cheikh Omar Fouti ba nekk ca Géejawaay nga julli ma ko fan la zawiya nekk ci Géejawaay mu ne mooy it mooy Chérif Ibra kër Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane billaahi yàlla moo dellu sama kër man yàlla moo dellu sama dëgg loolu nag bu ñu la ko waxee ba pare man gi xool toog bu may toogoon ñun sax du ma neex man woo ko téléphone sax soxla wu ma ko. waaw parce que Serigne Hadj Malick sa maam dafa wax ni sa sëriñ boo ko amee mun wax fas yéene nga koy génneeku fii rey bi fii ci boo ko dëddoo ka xef si ñi comme ni nga koy génne ko fii xëy na yow boo toogee ci kanamam nee na looloo lay may kay taamudu barakatu cheikh bi naa xam am maabu nee looloo lay may loo dugg sëriñ bi dugal ci loxoom te loolu man lu ma gëm la parce que fa ma nekk sama morom laa fa nekkal am na ñoo xam maa leen fa jiitu fukki at ak juróom ñu ko fa def am na ñoo xam def fa ñaar fukki at. te nuyu naa maa ngi nii ci kanamam loolu rek dund la al isaaratu takk fii li ma naa aqal la fa laa aqal la nag waaw ñun daal ñu koy tiitaroo saa su nekk yàlla yàlla guddal fanam yàlla dolli ko wér yàlla na ko yàlla roof kattan li mu yéene yàlla na ko eggale ci barke yonent bi sallallahu te am na yoo xamante ni xel du ko nangu sax Sénégal yëpp mën nga leen nax waaye gëm naa ne Thierno Bassirou ñu mën a taxa kenn mënu ko nax xanaa lu nit dof dof dof dof war ngaa xam ne kenn mënul nax Thierno Bachir wala déet kon wa salaamu min allahi wa aleykum wax yëpp kenn du ko tere parce que ñun wax loolu lañ kenn ne waxal ci ñun lu waay wax ci ñun nag dañ lay bàyyi nga wax rek comme yiw comme safaan ku mën a muñ ci yow ñuy wax safaan mm-hmm. war ngaa mën a muñ ci yow wax yiw nag wala déet ah te man eh, kenn mosuma dégg may tontuwante ci dara te kenn du ma mos a dégg it nag may tontuwante ci dara.